wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ma bikum min nicmatin fa min allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am mbégte bu baax dellu siwaat fii ci Tawhid TV waaye indi ci leen beneen édition spéciale boo xamante ni bi ci wàllu daara nañ leen ko doon faral di waxee saa su ne euh, Tawhid moom dafay nekkal euh, askan wi yëpp mooy li nga xamante ni bi mooy yaakaaru askan wi Euh, ba lépp lu képp ku xewle te la nga xewle jëm ci diine daf ciy def ay taxawaay ba mat sëkk looloo waral euh, daara ju ci xewle ñu invité ña nga xamante ne bii ñoo xewle waxtaan ak ñoom ci wàllu daara njëkk doog a ñëw nag ci seen programme bi nga xamante ne bii euh, moom la ñu war a taxawal incha allahu rabbi loolu tax tey ñu am te dalal fii markaz imam bi di daara Adja Binta Thiaw fële ca parcelle unité 6 fa tabarakallahu ci njiital Seyda Fatima Wade ñu dalal fi waa daara jooja ndax seen programme bi ñuy wàcc incha allahu rabbi waaye balaa ñuy yegg ci loolu ñu présenté leen ñi nga xamante ne bi ñoom la ñu toogal ki ci njëkk mooy Cheikh Ahmad Tijani tabarakallahu ñang moom mi nga xamante ne bi markaz la boo xam ne dafa ëmb daaro yu bari daaram bokk ci biir markaz boobu nga xamante ne bi wala bokk daaram bokk ci daara yi nga xamante ne bi markaz imam Chaatibi daf koo ëmb Euh, ba tey Seyda Fatima Wade toog na ci sama ndeyjoor euh, mu mooy ki nga xam ni moo jiitee daara Dia euh, Binta Thiaw bi nekk Parcelles Assainies unité 6 waaye ànd kook rakkam xaritam Seyda xabi Diakho fa tabarakallahu ñu war a waxtaanee nag programme bi war a am le 27 ci weeru mai bi ñu nekk incha allahu rabbi mbokk yi balaa ñuy def dara dañuy bàyyi Oustaz mu nuyoo bu pare incha allahu rabbi ñu doog a dugg ci waxtaan wi ànd koog euh, Seyda yi incha allah ñoom it bu ñu nuyoo ba pare kon euh, yaa oustaz salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina rasulillah sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim mhm. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما salaamaaleykum wa rahmatullah Oustaz Thiam. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay nuyu ba di la di di nuyu borom kër gi. Euh, moom lañ ci waroon a jiital sax di nuyu képp koo xam ne mi ngi seetaan Tawhid TV. di rafetlu seen liggéey maanaam ci wàllu Alquran Karim wala ci wàllu diine sax d'une manière générale. Mhm. kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara jërëjëf di nuyu soxna yi tedd yi ma àndal mm-hmm. muy e, Seyda Fatima Wade mm-hmm. di mudira madrasa alxaajatu Binti Thiaw bi mm-hmm. parcelle unité six ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaara di rafetlu taxawaayam di nuyu soxna Habi jaaxo moom it di ko di ko ziyaara di rafetlu seen taxawaay ñoom it ci liggéeyal alquran mhm. liggéeyal daara ak di ci xëy di ci sonn mhm. di nuyu képp kuy safoo daal euh, télé bi macha allah jërëjëf jazakumullah xeyran oustaz amin euh, yow tamit ci nuyu sell yooyu euh, yaa seeda asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu salaam wa rahmatullahi wa barakatuh aoudu billahi min alsheytan irrajim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah muhammad ibni abdillah salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajmain salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam Oustaz Abdou Aziz ñu ngi leen di nuyu di nuyu njiital barab bi mhm. di nuyu képp koo xam ne yaa ngi xëy di fi sonn te di sonn ci diine lool lool lool lool di leen ñaanal yàlla na taxaw wat aar leen te sàmm leen ba mission bi di diine mhm. ngeen mën koo yeggalee fu kawee kawe seen yortu ñu leen di nuyu bu baax a baax di nuyu oustaz Cheikh Niang mhm. bokk ci oustaz yi nga xam ne ñu ngi nekk ci markaz imam Chatibi mhm. jiite daara ji ñuy wax naan amalul jadid nouvelle histoire ñu koy nuyu di ko ziar bu baax baax di nuyu sama rakk sama doomu nday soxna Habi Jaaxo mm-hmm. di ko jaajëfal bu baax a baax moom itam ci taxawaayam bu rafet bi mu am mm-hmm. ci daara ji ci liggéeyal alquran mm-hmm. yàlla nag ko yàlla fa incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah xam naa moom la ñuy jox rek eh, oustaz xam naa ñoom eh, conférence bi jotagul ñu ñu ootee su xaw ma bu conférence bi jotee kon nan la ñuy def <laughs> waaw yow de asalaam <laughs> bi salaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Eh, maa ngi nuyu eh, Sénégal waa Sénégal yëpp di nuyu mm-hmm. julliti yëpp di nuyu téléspectateurs yëpp. Mm-hmm. Eh, di nuyu boroom kër gi. Mm-hmm. képp ku fi yëngatu tamit maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal. di nuyu kii oustaz Cheikh Niang. di nuyu Seyda Fatou Wade. di leen ñaanal yàlla na yàlla dafa jàmm te yàlla nañu yàlla yokk xéwal. Euh, jërëjëf euh, Seyda Habi jërëjëf Seyda Fatima euh, jërëjëf Oustaz Cheikh ci taxawaay yi ngeen di def ci wàllu Alquran muy liggéey bu noble liggéey boo xam ni daanaka mën naño wax ni amul liggéey bu ko fete kaw. ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xayrukum man taallama alqurana wa allamahu Euh, loolu nag bu amee ay nit yu taxaw ne ñun suñu liggéey yëpp dañu koy jël def ko mu nekk jàng ak jàngale. Mhm. loolu wax dëgg yàlla liggéey bu noble la liggéey bu bu am solo la ñu ngi leen ci gërëm bu baax di ñaan yàlla yal na yàlla taxawu. Mhm. Euh, Cheikh Ahmed Tidiane euh, alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. ku gis àdduna xam ni. ay jamono daa tàllu nañ fi ay daara. mu xawoon metti lool. daaray démb ak daaray tey bu ñu ko gisee am na benn différence bu ci nekk. bu ñu bëggoon waxtaanee daara dëggantaan euh, lan nga ñu mën a wax ci daara. Mhm. Euh, jërëjëf euh, Oustaz Thiam. Mhm. ñu delluwaat rek di la nuyuwaat. Mhm. di nuyu ñu ñuy seetaan. xam naa daara moom. daara tey sax ku ko doon bëgg a waxtaanee. jàpp nañ ne du xaj ci benn émission. <laughs> rawatina daara yi démb ak daara yi tey. waaw. moo tax euh, dañuy jéggal rek ñu def ko benn euh, kii bu gaaw rek. waaw incha pour mën a gagner temps bi. Mhm. Euh, xam nga daara. Mm. daara njàngale la alquran. Mm. jàng alquran ak di ko jàngale la. kon cosaanu daara buñ ko waxee dañuy wax ne ci sunu borom subhaanahu wa taala moom la njëkkee. Mhm. moom moo njëkk jàngal doomu aadama. moo njëkk ubbi daara hmm. wa allama adama al asmaa kullaha <laughs> summa aradahum ala al malaika kon njëkk jàngale moom sun borom hmm. subhanahu wa hmm. jàngal sun maam aadama kon foofu la daara njëkk ti jeeku ñu dem ba ci yàgg mu yónniwaat jibril alayhi salaam mu jàngal yonent bi saa sallam ci daarul arqam bi ñu wàccee eh, njëkk ci alxuraan iqra bismi rabbika allazi xalaq kon daara foofu la so eh, ñëwaatee foofu yonent bi saa sallam di ko jàngale di ko jàngal saxaaba yi yëpp muy wàcc di wàcc di wàcc ba ak sunu jamono yii mhm. euh, nga gis ne kon euh, jàngalem alquran ak di ko jàngale am na cëslaay am na cosaan lu wér mhm. loo xam ne kon muy kon euh, métier boo xam ne bu noobul la ndax loo xam ne sunu borom subhaanahu wa taala mi bind ñëpp mhm. moo ko njëkk taxawee yonent bi saa sallam mi gën mbindaa fan yëpp ñëw def ko yamu ca daan ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu mhm. maanaam ki gën ci yéen wax nga xadis bi léegi kiy jàngale alqur'an ak di ko ki jàng alqur'an ba pare di ko jàngale mhm. maanaam ki jël métier mu def ko njàngal alqur'an ak di jàngale moo gën nga gis ne kon bu ñu demee saxaaba yi tijji daar al jàngale alquran ci Seydina Aboubacar ba ci Seydina Ousmane ba ci mbindum kaamil mi ngay gis. Mhm. kon am na ay dara maratib yu bari yoo xam ne jaar na ci. ba tey boo xoolee e, université yi gën a mag tey ci e, monde monde islamique. Mhm. da ngay gis ne cosaan yi ay daara la woon. tuddee fu mel ni mhm. jaamiatul Azhar. fu mel ni jaamiatul xarawin ci uh, fële uh, fu mel ne jaamiatu zaytuna ci Tunis mhm. da ngay gis ne yooyu yëpp ay daara la woon muy màgg di màgg di màgg ba xëy tey nekk ay université jaamia islamiyi bi ngay gis ci mamlakal arabia saoudia macha allah yëpp ay daara la woon moo doon cosaan li mhm. léegi nag dem ba toll fi nekk ay université ànd ak jamono moderne ñu fay jàng lu bare bare bare parce que alquran moo mën a laytaayee loolu mhm. ndax bu ñuy wax daara xam naa Seyda Fatima buy ñëw ci euh, daara ji yi muy jàngaleeg yooyu. Mhm. dina ko gën a développé. bu ñuy wax daara du bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah tari alquran dem sa yoon. Mhm. déedéet waaye am na yeneen yu mën a ëmb. Mhm. dafa nekk ku yaatu mbagg koo xam ne. man naa mën naa mën naa boot lu baree baree baree bare lépp luy xeeti xam-xam rek. daara bu bu bu mën mën na koo boot. mën na koo boot te du yàq dara ca kii ba. ñu dem ba fii ci Sénégal da gis ne. Euh, ba fi ba fi euh, mag ñi commencé taxawal daara mhm. daara jiñ fi njëkk tijji mooy daaray piir ñu koy tuddee université Pire hmm. nga xam ne sunu mag ñi dañ daan jàng ñi njëkk génn dem Mauritanie jàng ñëw comme Xaali Amar Fall dem jàngi mhm. sos daara Pire mag ñu bari ñu ngay dégg fii Euh, Fass Touré Mame Makhtar Ndumbe ca Kokki mhm. euh, ci sefale ca ca ca euh, numtu jaamal mhm. ñëpp ak daara yu mag a mag yi nga gis yëpp foofu moo doon rootukaay bi mm. nga xam ne ñoom dañ ko dañ ko dundoon ci ay jafe-jafe yu xaw a metti waaw ah, ndax histoire pire bi nga xam ne dañ koo lakk sax bi ñuy xeex ak tubaab yi mhm. pour rek xam nañ maanaam xam nañ maanaam daara lim mën a def ci nit parce koo xam ne da xeex l'islam di xeex diine pour nga mën koo ne faw ñi ñiñ koy jàngal ak di ko def ci seeni dënn nga jéem leen a faagaagal ndax loola bañ a waaye mhm. nag euh, yuriduuna li yutfiu nuurallaahi bi afwaahihim <laughs> wallaahu mutimmu nuurihi walaw kariha mhm. alkaafiruun mhm. waaw sun borom subhaanahu wa taala moo wax ne maanaam bëgg nañ kaa fay waaye mënuñu ko ndax la koy sécuriser mooy inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizuun ndax dañuy wax ne maanaam euh, sun borom mooy wattu alquran ji ak ñi koy jàng di ko jàngale parce que dañuy wax ne tey butéel boo ko fi yoroon tey mu defum soow nga ne damaa bëgg aar soow mi faw di nga aar butéel bi ëmb soow mi moo tax suñu borom day aar alquran day aar nit ñi jàng alquran ak di ko mm-hmm. jàngale mm-hmm. moo tax seeni pexe sottiwul dem nañ sax ba tolloon ci ay jafe-jafe ñoom mag ñi mm-hmm. bu ñuy jàngale euh, dañuy euh, téere yoo xam ne dañuy tere sax mu dugg ci réew mi da leen di jaral dañuy génn réew mi dem Mauritanie jàng ko ba wattu ko an zahril qalbi dugg si waat woo kenn mu toog ñu koy saa koy bind noonu lañ doon amee ay kii moo tax am ay effort yu mag a mag lañ doon def daara dund ci jafe-jafe mm-hmm. Mm-hmm. màgg ci ay jafe-jafe waaye nag da nga gis ne mujj lu muy gën di dem rek ñuy gën di améliorer wu muy gën di dëppook jamono parce que ñi ko seqal ñu ci bari moo tax hmm. ci bari ñoo xam ne dañuy xeex lislaam boo waxee ñun la daara nii la mel daara waaye boo xoolee daara démb comme ñun ni ñu jàngee hmm. da ngay gis ne gënoon naa jafe gënoon naa metti que système bi xale yi di jàngee léegi mhm. système bi xale yi di jàngee léegi moom moo gën a yomb mhm. moom moo gën a gaaw moo gën a dëppeek jamono mhm. waaye dafa am ñu ñaqoon am ñu tuuroon seen deret nangu jafe-jafe yooyu ba man a taxaw tey moo tax kon tey daara kenn du ko denc ko mën a jam ci dara boo xoolee sunu mag ñi ñu ci bari bari ñoom alquran kese kese kese lañ defoon seen dund boo xoolee tey ku mel ne Cheikhul Khadim moom la wax kitaabu rabbi lillahi bihi sakantu man sama dunduk sama faatug sama lépp alquran kese la mhm. biñ koy not ak di ko bundu xataal ba mu demee fële bi mu ñëwee lu mu wax yàlla ni ma moytulee samay noon notalee ma samay noon ba mu mucc ci ñoom mhm. ci lii rek laa ko wéeroon mooy sama xalima gii ma yor mhm. ak sama daaji ak sama alluwa ji mooy alxuraan di may jàng <laughs> kon alxuraan dafa nekk loo xam ne nit ki koy jàng sunu borom dalay dalay dalay yiir dalay aar ci lépp dalay aar ci lépp maanaam lépp luy aw yiw feeg yaa ngi nekk jàng alxuraan di ko jàngale dana ko bijj mu ñëw hmm. lépp luy ak lor feeg yaa ngi nekk ci alxuraan di ko jàng di ko jàngal dana ko jeñ moo tax loolu moo tax daara di dem euh, ba dëppook jamono nga gis système internat yi mujj génn hmm. nit ñi di tijjaay internat di téye xale yi parce que bu njëkk lañ ñu doon lañ ñu doon lañ ñu doon xasee ci daara hmm. mooy xale yi dañuy wër di yalwaan xale yi dañuy tilim xale yi dañuy nangam waaye dem nañ ba gis ne ndeke xale mën nga koo téye ci kër condition yi nga xam ne maanaam yi muy nekkee ci këram mu nekk ko en même temps wala yu ko jege en même temps ñu koy jàngal alxuraan di def ci moom ab yar mhm. bul fàtte ne tamit maanaam yi nga fi gis dérive yu bare bare yu tax muy ñàkk am mooy nit ki la ñuy defar parce que daara nit lay defar nit mm. te tey jii àdduna bi li mu mel bu fi amoon ay château ak lépp lépp defaruñu nit ñi day gis ne day xëy rek màbb uh-huh. day xëy rek màbb moo tax boo xoolee ñi ëpp ndam tey ci Sénégal wala ñi fi ëpp réussite tey mooy ñi nga xam ne dañoo sonnoon ci tabax doomu aadama uh-huh. doomu aadama dañ koy tabax tabax intérieur am ndax loolu yàlla daf koo jàngale ci yonent bi salaa salaam wala yonent yim yónni daf bala mu leen di envoyé ñuy dem ci nit ñi daf leen di defar ba pare dégg nga hmm. laqad manna allahu ala almuminina iz baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim da yàlla neen dama leen di defar ba noppi hmm. wa yuallimuhumul kitaaba wal xikma ma jàngal leen ba pare ne leen dem leen ngeen woote ngeen jàngale ci hmm. donc kon buñ leen defarul woon risaala bi du jàll moo tax nit dañ leen di defar intérieurement daara mën a def loolu ñu gis ne am na ay concurrent yu mu fi nekkaloon ci wàllu yeneen njàngin loo xam ne euh, amul benn relation ak njàngum diine wala yarub diine mhm. waaye da ngay gis ne xam nañ ne ko ndeke nit ki dara mën na koo ñàkk raw ci àdduna mhm. te day jàng alquran am diinem am yar bu am yar bu yar bu yar bu yar bu jaar yoon mhm. jëriñ société am jëriñ boppam jëriñ diineem te du nekk menace ci société bi bu ngeen xoolee mhm. tey ji réew mu la ëpp ay daara comme Afrique de l'Ouest tey da gis ne Sénégal mooy réew yi fi ëpp ay daara alquran mhm. moo fi ëpp stabilité tamit parce que li tax nit ñi la ñu defar bu ñu sàggane woon nag ba loola rëcc tey jii bu ñu formé woon ay ñeneen ñoo xam ne jaarale woon ci daara defaruñ leen boo liggéey danañ gis suñu réew ci image boo xam ne moom lañuy gisee yeneen mhm. réew yu ci des léegi nag loola nag bu njëkk du ñu ne jigéen ñi kon dafa mel ne dëgg ci agsi li tax maanaam jigéen ñi léegi ñu gis leen ci ay daaraak yooyu mhm. maanaam nekkul lu bees du caagi ne phénomène la mhm. waaye tolluwaay la laay jàpp man damay naan ne tolluwaay la ndax boo xoolee ki njëkk joxe bakkanam ci lislaam jigéen la allahu akbar kon diine bu taxawee tey mënees naa wax ne diine moo ko tax jigéen a ko taxawal mhm. benn mooy sayyidatna Khadija radiyallahu anha soxna yonent bi sallallahu alayhi wa gis nga ni mu soutenir yonente bi ba risaale bi ñëw mhm. euh, sayyidatna Sumayya moo njëkk joxe bakkanam mhm. xam daanu ngir lislaam mën a taxaw kon tey bu ñu demee ba ne jigéen ñaa ngi jàngale du caagi ne dañ naan phénomène bu bees jigéen ñaa ngi jàngale alxuraan waaye lu amoon la mais léegi dañ gis ne maanaam commencé ne di gën a feeñ parce que dañoo nekkoon ci ginnaaw doon liggéey liggéey bu am solo mhm, liggéey bu am solo parce que boo xoolee su ñi fi ne ñi fi baax ñëpp kuñ la ci tuddal waajuram rek jàngalekat alquran la woon. wallaay dëgg la waaw ah, jàngalekat alquran la woon. xam mm-hmm. naa dinaa yemani ci loolu. <laughs> macha allah pour bañ a monopoliser bi. bu ci kanamee bu ñu ñëwee ci wàllu jigéen ñi. waaw jàngale alquran gi xaw ñu gën mm-hmm. cee mm-hmm. développé joxe ci ay exemple macha allah loolu am na solo te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax ndax ni nga ko waxee rek daara moom fi mu tàmbalee. bu fekkonte ne bi ña taxawoon taxawuñu woon kon ñun duñ ci jot. kon li yàlla wax yamkuruna bi afwaahihim waaye wa yamkuruna wa yamkurullahu laa xayrul maakirin kon loolu yëpp dafa nekk lu am solo loo xamante ni bi war nañ bàyyi bàyyiwaat xel bu baax a baax yëg ni fa daara tàmbalee woon mhm. euh, ay jafe-jafe rek la woon mhm. kon tey ñun ñi ko yor war nañu xam fa mu tàmbalee woon ba ñu mën koo sàmm mhm. ba du euh, raaf ci sunu ginnaaw incha allahu rabbi euh, yaa seeda xam naa ni dégg nañu Serigne Cheikh ni ni mu ubbee ci waxtaanee daara daanaka commencé ko ci borom bi subhanahu wa taala ci jàngal gi mu jàngal aadama wa allama aadama al asmaa jóge fa jox jibril demal nga joxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu indil ko iqra yonent bi jox ci saxaaba yi ñuy jàngalante daara yi taal taal daara eh, di jàngalante ba mu agsi ci ñun eh, yoon boobu yoon boobu ndax eh, am na lenn loo ñu ci mën a leeralal tuuti yow it en tant que jigéen Oustaz ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax. Mhm. di nuyu mbokku téléspectateurs yi. di jaajëfal Oustaz Cheikh Niang. Mhm. ci leeral yu solo yooyu mu indi. ah nga laaj laaj boo xamante ne euh, laaj bu am solo la te ñu mën cee leeral mooy ne. Mhm. comme ni ko Oustaz Cheikh waxee rek. segam suñu borom subhaanahu wa taala moo njëkk a jàngale. kon man jàpp naa ne doomu aadama waratut a toog. doomu aadama li muy ñàkk ñàkk ñàkk a toog jàpp naa jigéen a ci raw ci wàllu njàngale warut a toog moom. Hmm. ndax jigéen dafa nekk koo xamante ne ni ko Oustaz Cheikh waxee dareetam moo njëkk a tuuru ci lislaam hmm. nangul nañ ko ko. Hmm. yeneen ti yàlla Muhammad ba mu jógee xaaru Hira jigéen a ko dalal. muy soxna Khadija. ñu ni deetawaay bu dee wàllum ahadis jigéen na ci rawoon ci dina mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy soxna Aïcha sayyidatuna Aïcha moo ci rawoon kon nag damaa jàpp ne ñun jigéen ñi war nañoo jóg raweel googu ñuy raw hmm. ñu continuer ci ba faaw insha allah hmm. ndax jigéen mooy yaay ay al ummul hmm. moom moo war a mooy école bi njëkk bi nga xamante ne mooy yar Oustaz Cheikh dafa wax wax ju am solo mooy ne dañuy tàggat doomu aadama dañoo tàggat doomu aadama kon nag kii tàggat doomu aadama tàggatkat bu njëkk mooy yaay mi nga xam ne moo nekk ci kër gi moom moo nekk tàggatkat bu njëkk kon ñu gis ne wàllu jigéen ci uh, àdduna lay wax ma ñëw ne wàllu jigéen ci islaam ñëw ne wàllu jigéen ci quraan ndax soo xoolee tey uh, soxna jaariyatu li mu bind ci at yu na néew yu mu am yu mu dund mm-hmm. lu mu fi jàngale mm-hmm. bare na lool macha allah mm-hmm. mu nekkoon jigéen ju yiw ju seel macha allah nga xool ni jógee foofu adu jamono di dox di dox di dox ba ñëw tey jii gis ku mel ne Sayda Mariama Ñas radiallahu anha li mu fi liggéey ci alquran bare na foo ko mës a gis yaa ngi gis mu ngi yor alquranam di jàng fu mu mës a toll ah, yàlla na alquran doon wéttal ci biir bàmmeelam doon lumière bi koy leeral ci biir bàmmeelam macha allah ñu jóge foofu na ñu ñëw ci jàmbaar joo xam ne bu tut woon sax yar gim ñu yar mhm. ñu sañ koo mën a tudd mhm. mooy suñu yaay Hajja Binta Thiaw mhm. yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér-gu-yaram te sàmm ko te yiir ko boo dëgg mu ne woon jigéen ju jàmbaar joo xamante ne mën naa ne référence la boo xamante ne waxuma ku génnee daara ja waaye képp ku ko dégg rek bëgg nga ko ndax liggéeyam ci islam gën a wanaat jigéen sa valeur yow yaay kan ñun de li ñu mën a seede ci moom mooy tout le temps depuis bi ñuy nekk ay xale daf ñoo valoriser woon wan ñu ne islaam da leen a valoriser kon ngeen war ngeen a weesu fii tey ba tax na daal ñu ngi koy ñaanal buur bi subhaanahu wa taala rek li ñuy wax mm-hmm. mm-hmm. yàlla na ko yàlla sàmm te yiir ko te aar ko foofu daal laa jàpp ne daaraa ngi jëm ci kanam mm-hmm. incha allah li wax woykat yi di wax naan mm. xale yi daaraa ngi ñëw aar leen <laughs> uh-huh. incha allah yàlla nañu yàlla sàmm te aar ñu te aar xale yi daara te di wax ne jigéen ñi nañu gën a laxasaayu gën a góorgóorlu dama déggoon Oustaz Omar Diop di wax naan mm. yéen jigéen ñi de war ngeen a fexe baax man ko lu tax mun ma ndax kat yéen yàlla da leen a dooleel maanaam bu ngeen nammee njub hmm. mu ne na góor taxaw fee jigéen taxaw fee ñu bokk benn marketing hmm. ku jigéen ki la ñuy demal mu ne ndax yéen seen i mbokki jigéen sax yéen lañuy sotal góor ñi itamit dañuy dem ba mujj bàyyi seen mbokkum góor di leen sotal hmm. kon war ngeen a jéem a baax mu ne wala yaasu billah su fekkee ne nam mu ngeen safaan it boo moytul ne bu leen yàlla buuxee rek àdduna bi day tukki. Mhm. kon nag ñun jigéen ñi maa ngi leen di woo yéen ñëpp macha allah. Mhm. ñu gën a farluwaat gën a saytuwaat njàngaleem alquran ji incha allah. Saal ba ci kanam ñu wéyal <laughs> macha allah <laughs> am na solo te lu ci bari leeraat na ci ci wàllu diggante jigéen ak ni nga xamante ne bi noonu la war a taxawee ci en tant que en tant que yaay comme ni nga ko waxee ni borom xam-xam yi di wax ni al ummu madrasa mm. foofu laa bëgg ñëw ak Seyda Habi xam naa ni bu ñu nee jigéen école la kon am na lu bare bare bare lu nekk ci moom loo xamante ne bi war na koo génne ak euh, li nga xamante ne bi war na koo def ci ñi nga xamante ne bi ñooy jàng ci moom te bu ñu nee école nag góor dafay jàng jigéen daf jàng mag daf jàng ndaw dafay jàng mm-hmm. tey ban euh, taxawaay la jigéen war a am ci société bi instant bi ñu toll nii ci diggante moom en tant que école asalaamaaleykum wa waa jigéen moom xam naa moom mooy madrasa bu gën bu njëkk ci xale. Mm-hmm. parce que da ngay xool xale bi buy juddoo. Mm-hmm. lu mu lu mu njëkk xam. Mm-hmm. yaayam mook ko jàngal. Mm. léegi xale yi bu ñu demee ba am ay à l'âge de sept ans six ans leen indee ci daara tamit. ñun ñu ñu fi nekk di leen yore. Mhm. ñu ñoo war a taxaw joxe leen seen eh, won leen éducation boo xamante ne buñ demee ba suba yàlla eh, yàlla mun leen dimbali. Mhm. ñu nekk mag yi baax mag yu jub. Mhm. parce que xale yi ñu yore si daara yëpp ñun ñoo nekk seen yaay. ñoo seen lépp seen éducation ñu ñoo si taxaw. xale yi bu buñ baaxee ñun la. te ñun loolu dañuy ñaan. xale yëpp baax incha allah. Eh, xale mu bàyyi ñu leen rek ñu nekk foofu di jàng alquran dëgg la mais éducation tamit si la bokk. Mm-hmm. Mm-hmm. éducation mooy base bi parce que nit mun na jàng alquran boo amulee éducation lépp yëpp lay yàq. Mm-hmm. mais éducation mooy base bi xale moom dañ leen di éduquer lu ñuy wax ak mag lu ñuy dunde lu ñuy dundee ak seen i morom dimbalante yërmalante bokkoo lépp dañ leen koy jàngal. parce que eh, avenir la tey bu ñu demee ba xale dem buggante. bu suba incha allah bu ñu demee ba màgg nag day bëggee bi day gën a euh, dem ci kanam. Mhm. te réew mi mun na dem ci kanam ci tamit. bu mhm. fekkente ne xale bi dafa bu ñu nekkee daara jee ku si nekk kenn kenn faale wu moromam. Mhm. kenn euh, dimbalu sa morom. dañ dem ba bëggante sax dootu amati. te euh, loolu moom ñaanuñu ko yàlla moo tax éducation ñoo ngi si taxaw lu ñuy def lu ñu mun daal incha allah. pour xale yi am éducation bu baax. yal na yàlla dimbali rek. macha allah loolu tamit am na solo tax ndax hmm. eh, ay jigéen lañu. Hmm. waaye teewul seen liggéey wala seen rôle ci société bi surtout xale yi xam nañ ko bu baax a baax. Hmm. ba tax na duñ leen eh, jàngal alquran. yem ci du mm-hmm. damay bañ a wax alquran kese mm-hmm. ndax njàng mu alquran moom amul dara lu ko féete kaw mm-hmm. euh, duñ leen jàngal alquran yem ci waaye dinañ leen jéem a yar euh, Oustaz Cheikh ki nga xamante ne bii nag dafa jëli doomam dafa andi doomam ci daara tey euh, ak ni ñu diaboliser daara nga xamante ne bii ñu bare bare bari bu ñu bu ñu déggee turu daara rek seen fi day rëcc. parce que mhm. dañuy jàpp ni euh, dafa dem pour ñu toroxal ko dafa dem pour ñu euh, pour ñu pour ñu génne ko ci société bi. Mhm. waratu la bokk waratu la kii ba nga xamante ne bi léegi dañuy daw daara lu bare bare bari. Mhm. lan nga may conseiller ñi nga xamante ne bi instant bii ñu toll ni seen xel foofu la toll ci wàllu daara. Euh, Oustaz Thiam jërëjëf <laughs> nga may ma bala ma dugg ci sa laaj bi. ma sof ci li soxna Seyda Fatima doon wax wax dëgg mm-hmm. yàlla wax na wax ama am solo mm-hmm. euh, mu am benn point bu mu laal bu am solo boo xam ne mm-hmm. xëy na émission bee tax yaatalu ci lu bari waaye bëgg naa ci xuus tuuti rek mooy ci wàllu utilisation de la femme mm. maanaam utiliser jigéen ci lu ci naka sudul noonu maanaam wax na ko ci biir waxam maanaam jigéen moom dafa dafa nekk lu am solo ci lépp mhm. defe naa bi may wax sànq maa ngi koy wax bu fekkee ni ki tax lislaam taxaw mm. jigéen la mhm. ki soutenir l'islam ba mu taxaw wax na ko sànq ki ëpp lim nettali hadis yonent bi saa sallam jigéen la ba mhm. yonent bi joxoñ sayyidatna Aysa ne ko ne ñu xuzu nisfa diinikum min hazihi l seen diine seen xaaju diine jàng leen ko ci soxna su tedd si donc kon lool sax man dama koy faral di tontoo ñi nga xam ne dañ naan njàngum jigéen amul solo hmm. njàngum jigéen amul solo ñi koy faral di wax mooy xamuñu hadis boobu <laughs> ah, jigéen rek moo war a jàng Seyda hmm. wax na ko léegi al hmm. ummu madrasa ila isa antataha antata shaaban tayibal araqi maanaam jigéen école la boo xam ne boo ko boo ko préparé ni nga ko war a préparé nga ab ab xeetum lëmm hmm. mu am benn waxkat bu ko wax ci wax ju gàtt mu ne hmm. isa allamta waladan faqad allamta fardan wa isa allamta bintan faqad allamta ummatan alla boo jàngalee xale bu góor am na kenn koo jàngal waaw waaye bu dee jàngal nga jigéen ba mu baax aw xeet nga defar kon li Seyda doon <laughs> wax léegi maanaam lu wér la mu am ay jàmbaar ma ne nag li tax mhm. seen liggéey di ñuy gën a feeñ léegi ci terrain bi mhm. wax naa ko sanq ne daara jafe-jafe yi mu nekkoon sunu mag ñi ak ñi fi jiitu daawuñu woon bëgg eh, exposer jigéen bam mu ëpp parce mhm. que li tax bu fekkee mettital yeeg ya cay am yooyu mhm. jamono yooyu jigéen ñi mën nañoo deltu gannaaw donte daal ñu ngi doon def liggéey bu ama am solo ci suuf mhm. ndax góor gu baax goo fi gis rek jigéen ju dëgër ju baax ju maandu moo nekk ci wetam ban man kaa taggee lu mën a doon ah, wara akul rajulin imraatun azima maanaam ni góor gu baax gu ne mooy li ma wax léegi jigéen ju baax ju ñu yar moo nekk ci kéem moo nekk ci keppaaram man koo taxaw tudd na ci sunu maam Euh, soxna jaariyatullah euh, tudd na ci rahmatullah alayha say sayda sayda mariama euh, mhm. xoolal liggéey bu réeréy bi def ci alquran foo ko fekk mhm. waxuma kaamil waaye bi mu demee ba mënatul jàng sax day woo ay dongom mu tëdd ci lal bi ñuy jàng muy déglu lool ñëpp gis nañ ko mu ñëw ci xafizahallah sayda xaaja binte thiaw moom mi xëy na xëy na àgg ci waaye man ko danaa ci gën a xuus tuuti mhm. moom moo ko yar Mhm. jàngal ko alquran def li leer ci moom lépp te li mu wax lu wér la la leen a responsabiliser mhm. ndax bo xoolee li tax euh, jigéen yàlla dafa def ci moom barke boo xam ne mhm. maanaam lu mu jublu rek lu mu jublu rek maanaam mën na ci am taxawaay boo xam ne peut-être sax góor ñi duñ ko am loola nag du caagi ne lislaam daf koo réere mais dafa am loo xam ne sunu nooni lislaam sax dañ cee profité boo xoolee wàllu marketing mhm. da ngay gis ni jigéen lañ ciy gën a préféré mhm. wàllu leneen lu mën a doon rek ah, exposé dara wala jaay marchandise wala naam day gis ne nit ñi mhm. dañuy xool jigéen ñi gën a sàggan ñu utiliser leen des fois ci ñuy bëgg yu dëppoowut ak ay jikkoog yooyu dañuy jël jigéen parce que moo ëpp moo gën a mën a xëcc nit moo gën a mën a nooy waxin mën naa waxtaan ak nit muñ gi mu am tamit patience bi mu am peut-être léeg-léeg du am ci góor lim lay neexal ba nga ba jaay la lim bëgg góor souvent du ko mën léegi nag loolu noonu nag dañ ku mel na euh, euh, Sayida Hadj Binta Thiaw mhm. dafa fexe positiver loolu ci xale yu mel nii moo tax tey nga gis du moom mi donc waaye gone yu bari jigéen tey macha allah tijji mhm. nañ ay daara mhm. boo xoolee daara yi ñor fa tabaarakallaahu mooy gën a dox mooy ëpp organisation ñin góor ñi jiit daara xam nañ ci loolu lu bari sax ñun góor ñi lay dañ koy jàng ci ñoom ci seen méthode ci wàllu njàngale beneen jàngale dafa laaj yërmande ci xale boo xoolee jigéen souvent muy ëpp yërmande lool. Mhm. donc kon liggéey bu am am solo la ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla sàmm leen. aar leen maanaam taxaw daara yëpp. amiin amiin incha yi nag. Mhm. Euh, mooy ma ñëw ci sa laaj bi. waaw euh, lu ñu leen di conseillé daara moom. Hmm. li xewoon sax bu njëkk ci wàllu métti di doon am ci daara. Hmm. xëy na léegi amatul. waaw wax naa sànq ne maanaam nit ki léeg-léeg mu nekk condition sax yu jege yi mu nekkee woon kër waaye waajuram mhm. teewul ñu koy yar waaye na dañu war a xam base nekk ci daara jëleen dàqal nekk seen kër waajur ne waaw mu ngoog day ah. ñoo xam ne feet day jot <laughs> moom mi am na ci ay xale yu yoo xam ne dañ ma dem man fii laay jullee daf ma daf ma daf ma dal ci korité bi passé am ñoo ah. xamante ne bi korité dañ leen di may feet am ñoo mm-hmm. taxaw nañu mu ko ne demuñu demuñu <laughs> <laughs> est-ce gis nga loolu euh, waxkat dafa am benn euh, arab day wax ne mm-hmm. kun aaliman mm-hmm. aw mutaalliman aw muhibban mm-hmm. wala takunil xaamisa fa gis nga waajur bi jël doomam di ko jox ab sëriñu daara mu koy jàngal waaw bu mu jàpp ne rek maanaam fi mu ne nii mm. sëriñu daara bi tiyaaba bu mu am mm. moom waajur bi dana ci am bu ko ëpp mm. xoolal teraanga ji yàlla def ci jël sa doom joxe ko mu jàngal alxuraan bu fekkoon sax dañ ko fay mettital laa wax mhm. jàpp naa ne sik euh, maanaam sacrifice bi jar na ko jar na ko waaye alors que duñ leen fa mettital mhm. li tax sacrifice bi jar ko mooy sunu borom daf la ni boo jëlee sa njaboot yóbbu leen ci daara ñu jàng alxuraan ba mokkal ko jëfee ko mhm. ëllëg yow mal xam da ngay ñëw yàlla woo say ñaari waajur jox leen mbaxane moo xam ne fu waay toll di ko seen ci terale leen ko loolu lu mënoon am ci sacrifice rek looloo tax nga daan dégg mag ñi bu njëkk bu ñuy jox nit sëriñu daara naan ko yeexam laala eh, la yeexam laala laaj ah, waaw donte léegi boo ko waxee ñu ni loolu dafa nangam di ko teg ci xel ay diina du xel diina xel ay texte la mhm. ay texte la moo tax boo xoolee tey ñi fi baax ci réew mi ñëpp sunu mag ñi ñëpp seenu njaboot alquran waxoon naa ko sànq mhm. moo doon seenu moo doon seen euh, seenu bëgg-bëgg moo mhm. doon seen lépp kon wax dafa ne ku na aliman del jàng aw jàngalu Mm-hmm. aw mutaalliman jàngal wala nga jàngulu mm-hmm. boo jàngul jànguluwoo mm. bëggal sax kii jàng ak di jàngale macha allah waaye nag bul nekk cinquième bi mooy bëggoo jànguluwoo <laughs> jàngoo bëggoo kuy jàng bëggoo kuy jàngulu nee na loolu ku ko def rek day alko <laughs> donc kon maanaam euh, waajur yi mm-hmm. war nañoo feddaliwaat laxasaay ndax li ngay li ngay méttul la ca daara ja mm. sa yaa ngi koy gën a méttul li sax sa kër gi bu fi xale yi nekkee léegi mm-hmm. gis nañ ñi fi doon daanak boo yoree ñaari xale ñetti ci sa kër mm-hmm. dañ lay lëjël huit huit huit du caagi ne nag lëjël gee war a tax nga yóbbu leen daara daara du caagi ne day téye ñiy lëjalaate déedéet dañ koy defar nit boo bëggee mu jariñ la faw nga defar olof day day léem ne yàlla uh-huh. da nga koy lebal da nga koy lebal ker mu fay la guddi uh-huh. te suñ borom ku am fulla la maanaam ba muy soxla sa doom mu nekk ci juróom-benn at juróom-ñaari at. Hmm. boobu la ko sun borom soxla. Hmm. pour man la kaa dellu ëllëg. foofu boo ko xañee yàlla nga dem ba mu màgg nga bëgg mu jariñ la sun borom dala koy xañ. moo tax ngay gis nit. ñu bari defal naa ko lii defal naa ko naa nga waaye xoole lim ma fayee nga ciy dégg. parce que bi ñu waree defar nit ki defaroo ko. parce que nit doomu aadama nekkul comme laadum bu ñuy yar ci kër wala nangam. Hmm, après da nga koy dafay am prix déedéet. nit ngay defar loo ci mën a def ëllëg si biir mu mën laa noppal ci mhm, bari mhm, mhm. donc kon liggéey nag boo gis day am ay accident léeg-léeg waaw ah, wax sax gis nga bañ laa làmmiñ nit wax ba ci yàgg màtt boppam dëgg la donc kon yooyu di du ci ñàkk kenn mënul raxas daara ba mu set wecc daan ko fa dem lépp nice ok déedéet déedéet dana am ay rëq-rëq mais faw nit ki bañ ko parce que prix bi moo tax dëgg la di dégg nga dañuy wax ne euh, Sëñ Tuubaa day wax ne waxay suma yu bas basmilu sabiyu fii maktabin yaktubu lahu laliyu hmm. wa walidayhi wa liman yuallimu baraatan min naarihi faltaxnimu hmm. maanaam nit ki xale buñ ko tegalee uh, bik walla daa ne ko waxal bi asmi hmm. waxal wala waxal baa siin miim rek ci daara nee na suñ borom subhaanahu wa da koy jéggal ba ay bàkkaaram moom xale jékkal ñaari waajuram jéggal ku koy jàngal waaw loolu jarul sacrifice bu boobu <laughs> moo tax li ñuy jàmbat Euh, souvent dañ koy wax sax sëriñu daara bi hmm. li ngay gis muy naqari ci yow ci sa njaboot hmm. ngay ñëw ci moom di ko ko wax sax dina ko dimbali hmm. waaye nag jarul nga naan daara ji néeg naa nga bëgg ne euh, naa ci joxe misaal rek maanaam euh, sëñ Ahmad Saxiirloo ci kokki waaw dafa ñëw benn ñuy tuddee ay kilifa diine ci réew mi mu yónni mu ko woo ko ko dama laa bëgg a jox sama njaboot ah man nag xale bi ma lay jox nag dama bëgg dama bëgg maanaam nay nay lekk lu neex nay tëdd fu nooy bu ko kenn dóor na njàng bi di baax mu ne ko ah, li nga wax nii lépp moom moom amu fi fii daal li fi nekk ñëpp yem mu ne ko waa man daara jooju laa doon wër Euh, mu ne ko man daara jooju laa doon wër daan na ko bu subaat naa la indil xale bi parce que léeg am na léeg-léeg nit yor yenn sant yi wala hmm. jàpp ne borom barke la ak nangam hmm. bëgg yenn traitement de faveur yi ci daara yi léeg-léeg nag mënul am maanaam daara mënta mënta neex ni kër baay neex déedéet mënta neex ni kër baay neex parce que dafa am leneen lu ñuy def ci nit uh-huh. loo xam ne amul parce que yar tarbiya hmm. tarbiya du du yaram nekkul di sangu ba set nekkul di sol rafet ak di diw dee tarbiya ruuxiya la ruuxu doomu aadama nag yonente bi rek bi ko jibril di indil alquran sallallahu alayhi wa mm-hmm. daf koo njatt ba mu ñaq tooy xep ne ko iqra wallaahi ndeysaan kon li mu daj yow nga bëgg a bokk ci xeetu kooku ne doo ko daj day xaw a day xaw a ma waar macha allah kon nañu góorgóorluwaat ci <laughs> ci daara yi incha allahu rabbi macha allah jërëjëf euh, Cheikh Ahmed Tijani kon euh, mi ngi noonu euh, ñi ngi war a ñi ngi doon waxtaane li nga xamante ne bi moo nekk ci daara ji te kenn ku fi nekk ci ñun yorob daara yor ay xale di leen jàngal waaye di leen yar kon xam nañ li nekk ci biir bu baax a baax a baax di soññiwaat ñëpp rek mm. nañu bàyyi xel ni fi mu nekk nii daara daara ji euh, li yi naan euh, daara day fay jamono ji ñu toll nii. Mhm. lu waaye mën a def lu nekk ci àdduna te mhm. jiba woon ci daara ji bu yàggee di nga di nga xalaat di nga xam ni mhm. mbir mi ci daara ja la nekkoon kon nang fa teel a dem balaa moo gën a balaa moo gën a xat daal ndax léegi daal euh, gis nañ ni daara yi nit ñi ñu ngi ci góorgóorlu bu baax a baax a baax ci njàngale waaye ci yar ci ni nga xamante ne bi noonu la nit ki di nekkee sax ci këram léeg-léeg daara ji dàqal ko kër way juram tabarakallahu ñu nekk ci euh, benn markaz euh, boo xam ne markaz imam bi waaye am daara ju ci euh, lonk muy daara yaay Adja Binte Thiaw ñu koy ñaanal yàlla yal yàlla gën a guddal fanam yal yàlla dëgëral ko ci liggéey bu rëy bi muy liggéeyee lislaam di génne téeméer lu topp ci ay xale yu jigéen yu mokkal alquran mm-hmm. yemuñu ci mokkal ko waaye di ko jëfee loolu nag euh, résultat bu rëy rëy la ndax euh, bu ma ko xamul moom xaw ma ay xaw ma xaw ma ab liggéeyam waaye gis naa résultat bu mu def ndax euh, du moom kese laa xam ci ñi fa génn yor daara mu réussir Eh, yal yàlla sàmm leen yal na yàlla jàppale leen ñëpp incha allah ba kenn ku ci nekk la nga lay sa mébét eh, nga nga nga nga nga mottali ko ci li nga xamante ne bii def na ko ci yéen ñu jëm ci benn programme incha allah programme boobu Daara yaay Adja Binta Thiaw war ko taxawal eh, Daara jooju mooy jan Daara ak ban programme lañuy ñuy wàcc. Mhm. damay wax leen rekk mhm. nga baal ma benn laxasa rek mhm. euh, Oustaz Cheikh dafa wax ne way jur yi ñu teel a yóbbu seeni doom ca daara ya mhm. yaakaar naa ne yow wax nga lu mel noonu mhm. yàlla da koy lebal bëccëg mu fay la guddi da koy lebal ker mu fay la guddi ah dama déggoon benn mag muy tooñ euh, sama mbokk pël mu ni pël ba doom ja dafa feebaroon feebar bi métti ba xaw leen a jaaxal ah moom jaaxle na moom fi mu ne nii dem na daal ba yaakaar ne faatu rek ka ci des. Mhm. léegi nag moom mu doog a reculer daal di julli ñaari raak di ñaan yàlla na yàlla man de sama doom ji sama mayoon mu wér ma yóbbu ko sax mu jàngi alquran <laughs> yaay ji ne ko. waaw alquran yi yi ne fi. moom war a sàmm <laughs> nga na koy jàngaloo alquran bàyyi ji ko noppil man damay nax yàlla. <laughs> kon waajur yi. foofu dafa am lu bare loo xam ne yow mi ne mhm. ci daara ji koy yëg da nga koy dund. waaw waaw waaw dafa am waajur woo xamante ne. Mhm. dafa ñëw li wajhillah mhm. jox la doomam ngir bëgg ci moom alquran. Mm. li waral phénomène bii di am ci daara yi. ak jàmbat bi. bëgg-bëgg yi dañoo uute. dëgg la aniyatu soliha moo fa nekkut ci ñeen ñi. te dañ koy leeral ba mu leer. mooy ne ki ñëw jox la doomam ngir bëgg alquran dong. ak ki ñëw jox la doomam. ngir moom daa amul ku ko ko téyeel mu jox la ko ba mën a xëy mhm. ak ki ñëw jox la doomam ngir dafa të mhm. souvent looluy indil daara problème mhm. ndax tey bu ñu xoolee ci ka yi ki nga xam ne nii dafa tëj ñu yóbbu ko prison day gën a të dong ñu ci ëpp defoon la ñuy defaat ndax jamono yi maa ngi dégg koo xamante ne ñu ngi nettal dañ ko génnee yàggul sax mu dem faataat doomu aadama agressé ko nangu la mu yor mooy ne kon nag ñu war a ne daara day defar doomu aadama mooy ne buñ sëriñu daara ba dootul nelaw mhm. dootul noppalu charge am day yokk ngir mu defar gune googu mhm. kon nag waajur yi ñu ngi leen di gën a jàjjaat ci ngeen am ay yéene yu sell ndaxte kat xadis ba kat lu muy wax mooy innamal amalu binniyaat wa innama li kulli imri'in ma nawa mhm, comme hadis bi dafa gudd ñu gàttal ko foofu ñu gën a góorgóorlu ci loolu incha allah oustaz maa ngi jéggalu jërëjëf <laughs> buñ ñëwee ci daara yaay Adja Binta Thiaw mm. bi nga xamante ne dafa bootu ci markaz imam Chatibi mhm. ci njiital mudir Oustaz Omar Diop daara ji dafa am programme incha allahu rabbi mhm. programme bi mu ngi nekk le 27 mai mhm. ñu ngi koy amalee ca parcelle unité 6 Euh, ca wetu daara ja nag la conférence bi amee incha allah. rabbi foofu lay ame incha mhm. allah. ca terrain unité 6. waaw ca terrain unité 6 ba. terrain unité foofu lañ koy defee. macha allah incha allah. incha allah rabbi loolu am na solo kon euh, xam naa bu euh, Seda Habi yow it xam nañ ni programme bi maanaam. wéetoo ci maanaam yaa seddaa wéetu ci ndax yéen a yéen a ci bokk di liggéey mm-hmm. euh, tey bu ñu bëggoon a xam programme bi naka lay doxee naka lay amee ci journée bi euh, nan lan nga ñu ci mën a wax. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mm-hmm. programme bi mooy daara ji dañuy comme suñu première conférence na nag. Mm, bi mooy première édition suñu première édition. macha yàlla def naa bu ñu commencé ça fait cinq ans ren. yàlla dogal commencé léegi. ça fait mm. cinq ans yàlla dogal na. Mm-hmm. ñu am ñi mokkal alquran. Mm. ñu war a def suñuy conférence le vingt 27 incha allah. unité mm-hmm. 6. Mm-hmm. Euh, xale yi moqal dañuy tari. Euh, am na xale yu jardin yi ñoom tamit dinañu tari. ñuy def seen i seen i théâtre. Euh, xale yi yeneen xale yi fa nekk tamit te tareeguñu. ñoom tamit dinañuy dinañ jàng. dinañ jàng alquran. dinañuy def seen i théâtre. waa macha allah. kii bi programme bi daan si noonu la demee daal. macha allah eh, dañ koy comprendre ndax ab soninke la <laughs> soninke bi bëgg làkk wolof. <laughs> <laughs> day xaw a métti tuuti rawatina. <laughs> waaw mu ngoog euh, Yacine daara ji xam naa mi ngi ci cinq ans la toll euh, war a def premier édition ci conférence boo xamante ne bi euh, wane li mu liggéey ci cinq ans yi am na fa ay théâtre am na fa ay tabaarakallaahu xale yu mokkal war a tari am na fa nit ñoo xamante ne bi mokkaluñu waaye war nañoo wane li ñu jàng ñoom tamit loolu ci ñaata at maanaam ci cinq ans yi ngeen liggéey ko liggéey bi nan la nan la mel foofu metti na jafe na jafe-jafe yi fa am ah, ah, xam naa ne moom ku nekk ci daara moom <laughs> kenn du laaj ndax jafe na wala jafe wut maanaam eh, liggéey bi noonu nan nan ngeen ko nan ngeen ko nan ngeen ko taxawalee. waaw ah, Oustaz Abdou Aziz jërëjëf. Mm-hmm. waaw comme ni ko soxna Habi waxee rek. Mm-hmm. daara ji mu ngi ci cinq ans ci ren. Mm-hmm. ndax mu ngi ubbi woon le premier juillet. deux mille dix huit hmm. ba deux mille vingt trois bi juillet mille vingt trois ci lay am cinq ans yàlla dogal na nag liggéey bi nekk na liggéey boo xam ne bu méttee métti la hmm. di jànkoonteel ay jafe-jafe yu métti euh, nelaw yi doyatul noflaay bi doyatul doyatut hmm. daanaka daal kuy wax daara daal xam na ne bada al islaamu xariban wa sayamudu xariban loolu daal moo nekk ci daara euh, daara ji ba mu sosoo ak léegi jafe-jafe yi muy jàngoonteel bokk na ci li gën a métti tey mhm. mooy jafe-jafe am jàngalekat bu mën a jàngale carrément mm. léeg-léeg dañuy së sikk sëriñu daara yi mhm. naan Oustaz Abdou jaar na ci Fatima Wade jóge na fa mhm. euh, Fatima son Oustaz Cheikh Niang na ci Fatima Wade jóge na fa léegi bu yàggee wut noonu faaw ñun jàngalekat yi ñoo xam ne dafa am masuuliya mm-hmm. bu yàlla jàdd ci suñu loor mm-hmm. dama koy wax jàngalekat yi toujours ne leen euh, xale bi jàng mm-hmm. yow yaay responsable bi te ëllëg yàlla dina la taxawal laaj la ko ma nag xaaru fi benn jàngalekat du ko laaj ndax dama lay laaj balaa sama borom di ma laaj ndax bu ëllëgee yàlla dina laaj jàngalekat bi waaye dina taxawal Fatima Wade mu yoroon daara ja mhm. ak samay mbokk yi jàngale yëpp rabu particulièrement waa daara yaay xajja Binta Thiaw mhm. mooy Aïcha mu minu mhm. dina leen laaj kenn ku nekk doomu diw bañ la joxoon diw ak diw diw diw lan nga ci def kon jafe-jafe bu njëkk mooy xale yi nañu jàngaat bu baax a baax gën a jàngaat Qur'an gën a taxaw ci liggéey pour jàngale ndax njàngaleem Qur'an kat lalal ñu tapis rouge pour ñu jaar ci de pour jàngale ji déedéet ay dig moo ci nekk ak ay ñagas-ñagas ak ay mm-hmm. taxas mm-hmm. ñun ñoo ko war a dindi ba ëllëg bu ñëwee mu nekk tapis rouge mm-hmm. boobu mooy ja euh, kii bu njëkk jafe-jafe bu njëkk beneen jafe-jafe bi daara am mooy daara dina yeewu njël daara dinañ yeewu njël jàng ak yépp comme ni ñu ko xamee ci daara jafe-jafe beneen bi mu am mooy daara dafa war a jóg ci location daara daa war a jóg ci location ndax xam nga ni Oustaz Abdou Aziz mm. borom kër yi dañ doon wax bu njëkk man du ma luwee daara. Mm-hmm. waaw ndax day yàq sama kër lan mooy daara day yàq sama kër. Mm-hmm. daara damaa jàpp ne kii defar nit daa mën na bàyyi kër. <laughs> kii defar nit kat yaakaar naa ne nit a gën a jafee defar. kër kër ndax kër moom boo ko defaree kenn taqalu ko dootul taq. Mm-hmm. léegi nag daara yàqul kër waaye daara non seulement day defar kër. beneen bi ñoom ñi nga xamante ne ñooy ñooy bailleur yor seen kër di luwe. dem nañu ba luwe tuñu nit. mais daara la ñuy luwe. parce que xam nañ ne daara moom. balaay lekk mbaa mu naan sa xaalis moom dina ko dindi teg ko ne waaye nag daara ji day jànkoonteel ay jafe-jafe ci mbaa wàllum location balaa la diis yow dootoo nelaw yaa ngi xalaat diw mu fëgg ma téléphone bi bu sonee nga jàpp ne loolu la lay doyee mu nekk nag jafe-jafe boo xam ne tamit dafay delluwaat ci wàllu parents d'élèves yi mhm. ndax parents d'élèves kat li mu war a njëkk a def man sama jàpp mooy ki ma yoral sama doom mhm. yàlla nag bu mu doon internat mhm. di lekk di naan mhm. weer deewee kooku kat amel naa ko njukkalu li nga xam ne moo dox suñu diggante ma di ko teel ndax bu parent d'élève bi yéexee indi loolu sëriñu daara bi dootul nelaw ku nelawut doo jàngale dama leen koy wax léeg nit na la yow doo woote téléphone naa nga man leen xool leen journée lan ma soxna Habi li may mun na ma ci seede mun naa xëy di naan leen ñëw leen ana borom fukki xisib yi ma waroon a téyeel ana kii di ba waajo mokkal alquran ki ma waroona a téyeel léegi nga tardeel daara ji jël temps wu yaa sayda jël tardeel xale yi nga xamante ni tey ji xëy na amaana fukki nit yi nga xamante ne ñoo tardé ñu ngi bëgg a tardé leneen xale yi loolu jafe-jafe daara la way juri nañ ci gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax daara ji amaat beneen jafe-jafe mooy Oustaz Abdou Aziz daara ji dañoo nekk ci location oto dama koy wax daanaka cinq ans oustaz Cheikh Niang muy sollicité woon naa ko ci xam na ci lu bari maa ngi ut auto transport d'élèves mënumaa fexe ba am ko foo xalaat nag ni man mii hmm. sama tànk bi teggeeku na fa dem xool ñu yor oto lu ñuy jaayee ak oto nan lañ mën a def ba am oto mu nekk loo xamante ne jafe-jafe bu métti la ndax la nga cay joxe bare na bare waay goo xam ne daara daal ni ma ko mën a waxee mhm. mooy daara ji war naa am suufas boppam mhm. mbaa am kërug boppam mhm. mbaa am oto boppam ndax insha allah li daara ji di am yaa da moom moo ko te àdduna du mu sa yàgg ba mu moom ko ndax waqf la ndax bis bu fi yàlla na yéex bu fi jógee kenn du jël kër ga day jëti ko suulaale koog dongo yi kenn du jël oto ba suulaale koog dongo yi kon encore une fois ñu xam ne daara lépp lu fa dugg ñay dund ca daara ji ñoo ko moom mhm. tey misaal euh, Ahmad Sakhir Lo yàlla na ko yàlla yërëm ra radiyallahu anhu amiin ya rabbal alamin li mu fi ba nii mhm. xanaa la koy fekk ca compte ba ci mhm. yiw ak mbaax waaye yaakaar naa ne ba muy ubbi daara ji ba ay juróom-benni dong yu mu amoon génn ci àdduna ba fi suñu jot ni yàlla ak tey la gënoon a naqari ca daara ji yëpp yaakaar naa ne faxasoon moom moo dundoon coono moom moo ko jëloon ñaqam mo def ko ci waaye kon bu doon wàllum alal la doomu aadama di wut da ci daara mhm. na ko tëj te wu ci alal waaye wallahi insha Allah dina ci am nag sutura mhm. ak yiw <laughs> ba keroog pencam yàlla di taxaw alhamdulilah salaamaaleykum mi uh, mi ngi noonu mbokk yi kon uh, xam naa ni instant bii ñu toll nii li des ci waxtu yu bariwul mm. waaye après dinañu dellu si wax ci uh, Cheikh Ahmed Tidiane mu tëjal ñu ko waaye bàyyi loo xel ñëpp rek ni daara ju nekk ci location ku nekk day xam wala boog kenn ku nekk rek ki nekk ci location boppam rek nga xamante ne bi ñaari soxnaam la yor ak ñaari doomu rek euh, bu weer deewee xelam dootul dal fii euh, fayul këram léeg-léeg na nga dégg koo xamante ne bi génne nañ ko ndax lan toog na six mois fayut te loolu yaakaar naa amagul ci daara yi ndax daara yi ay jàmbaar lañu ñi yor seeni xale maanaam ñi fa indi seeni doom nañu jàppale sëriñ daara yi jàppale borom daara yi ndax li ñu warloog ñële mën a wàcc ndax euh, kiy jàngale daara jamono ju ne day sóor digganteem ak boroomam que li ma wax ak teeg ak kii du ma bëgg mu teggeeku loolu nag moom bu xësee am rek mooy nit ki moom eh, daanaka day jaayanteeg digganteem ak boroomam bu doon jaay ay eh, ay matériel am di fay kër gi sax dina ko def waaye lu mu mën a def dina fexe ba fay kër gi fay ñi muy jàngaleel nga xamante ne bi àq boobu day wàcc la des nag moom ci digganteem ak boroomam mu ko koo eh, tabaarakallahu Oustaz Cheikh lan nga ñu ci mën a dollil ci deux minutes rek bu ñu paree ñu joxe kàddu yi incha allah waaw xanaa sof rek euh, Oustaz Thiam mhm. ci li Sayda Fatima Mudira doon wax léegi ci daara ji mhm. euh, xam naa euh, daara ji am na cinq comme ni ko waxee mhm. waaye ren xëy na mooy première édition ci wàllu tari bi mhm. waaye xale yi nag ñi fa commencé woon jot nañoo mokkal balaa trois ans yi di mat mhm. mooy kon am nañ ci fa mokkal daaw daaw jéeg am ñu mokkal ren macha allah xam nga buñ nee première édition ku dégg cinq ans day jàpp ne xale bi juróomi at la jàng waaw waaye euh, système bi foofu ñoom ni ñuy doxee mm. mooy léegi xale bi ci ñetti at xam nga léegi sa doom da nga koy dugal mm-hmm. euh, mu def euh, CI CI CP ba CM2 six ans la war a doon. Mhm. daara ji nag boo ko fa boo moom trois ans yi daf koy jàng alxuraan wattu ko ci dënnam. Mhm. bu ko defee ñi ngi am projet franco mooy maanaam ñiy génn dañ leen di defal franco arab mhm. boo xam ni trois ans lañ koy jàng. bu ko defee dañuy boole CI CP C1 C2 CM1 nga xam ne ñetti at yi boo ko boolee ci trois ans yi mu njëkk jàng day daal di nekk six ans yi mu waroon def ci primaire fekk mokkal na alquran am certificat franco arabe kon ñu ngi fay liggéey liggéey bu ama am solo di eh, xale yi ci wàllu aar dañuy jàng ay taekwondo dañuy jàng ay ay yi xale mën a jàng du mhm. caagi ne dañ koy sa alxuraan rek mu dem mais dinañ fexe xam nga li xewoon démb ci daara amatul maanaam di dem ay tool di bay yooyu pour yëngal ki waaye dinañ fexe ba xale bi du yaafus ci mhm. daara ji mhm. maanaam saa yuñ paree ci moom rek dina mën a am métier boo xam ne foo ko orienté rek mu mën caa dem macha allah kon liggéey bu ama am solo lañ fay taxawe moo tax may wax ci li muy kii rek xam nga waxkat bi day wax ne laa taajaban min haalikin kayfa hawa bal faajaban min saalimin kayfa naja maanaam def lu baax léeg dafa jege buntu àjjana day jege nit ki waaw waaye kan moo la ba kan mooy am sens ba ñu wax la ko nga mën ko dégg mhm. ba mën caa def sa alal xam nga bu ñuy wax ne xayrukum man taallama alquran kii mm. jàngale alquran ki gën mooy kiy jàng alxuraan ak di ko jàngale mhm. du caagi ne ki toog ci basang wala ki toog ci sées di jàngale déedéet kii jël alalam di ci def da ciy dugg ci ñi gën la bokk kii fóotal daara ji ci la bokk comme li wax ni génn ci location tey nit mën nañoo seetaan mhm. xoolal kii nekk jigéen te fa tabaarakallaahu effort yi muy def Seyda euh, Hadji Binta bi mu ko yaree def ci moom la mu war a def mhm. moom mi am na benn exemplarité bu am solo parce que euh, français la doon jàng dem ba toll ci niveau yoo xam ni maanaam macha allah ay notam di baax ak moom mu ne man damay jàng alquran allahu akbar passion nekk ci jàng alquran ak di ko jàngale ba yàlla def ko ni mu koy def tey mu dem tijji daara di jàngale te daara ji mu jàngale xale yi mokkal dañuy def franco arabe en même don kon liggéey bu rëy rëy la boo xam ne moom moomu ko wax na ko mhm. waqf la moom ci boppam sax waqf la moom ci jëmmi boppam maa jëllaale daara ji donc kon ku ciy def sa alal <laughs> sa bopp rek nga koy defal gis nga ni kon daara ji am na problème mu location ak mhm. ni ngay jàppee ci daara ji ay mécanisme yu yomb la mhm. yoonu àjjana wu gaaw la mhm. ndax man ngaa xëy tey amub teere ñëw la 27 ca tari ba ne ko Seyda Fatima de kat kayit yi maa la ko jox ci turu daara ji wala nga ni ko nangami tonni ciment mi ngi ni tàmbalee ko liggéey bi léeg-léeg nit ñëw ne ko ah man de sama doole fi mu toll hmm. naa an mën naa la koo fay location am fay naa ko yooyu hmm. yëpp ay xeeti def yu baax la hmm. te nekkul lu tuuti parce que xam nga sarax danga koy saraxee rek am tiyaa ba dem waaw mais gis nga li gën a jafe te seytaane du bàyyi nit mu koy def mooy wàcc fi luy sax tey kii tey boo ko ñu mayoon ab terrain. Hmm. ne ko def ca daara ja. Hmm. ilaa an yarisallahu al arda wa man alayha ba keroog at nuy tukki. ku hmm. fa wax bi asmi tiyaabu bu mu am. yow dalay fekk si. kotaam da koy fekk si te yow du wàññi sa kota dara moo tax yoonu mbaax yomb na waaye nag euh, seytaane moo dul bàyyi nit <laughs> ndax su ma la aati yan na hum nga moo tax danaa leen ñëwee kanam ñëwee leen ginnaaw day joor càmmoñ ba duñ fexe kenn walaa tajud aksarahum saakirin mm-hmm, mm-hmm. te li fi nekk lépp ndénkaane rek la moo tax yàlla yonent bi saa salaam bi wax suñu borom ba mu koy wax def ko ne mm. wax leen ne leen hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim allahu akbar te ma laa tegtal benn commerce boo xam ne dana la dana la maanaam setal ci mbugal doo am mbugal doo am jafe-jafe adduna joo am jafe alaxira munu ko ban ban commerce la munu ko tuminuuna billahi wa rasulihi wa tujahiduuna fi sabilillah bi amwalikum allahu akbar boo gëmee yàlla hmm. jihaatal ci sa alal bopp. Mhm. nga def ko da yu mel nii ci la bokk. macha allah <laughs> may daara ji terrain fayal daara ji location. Mhm. tey ji un un boo ko fayaloon daara ji location ku fa ne bis mi ku fa jàng benn araf. Mhm. la fa nekk ci dong fa tabaarakallaahu ñëpp ku ko ci def tiyaabaam ñoo fekk si la. sëñ bi loolu mooy toog muy dox. loolu mooy fayal fayal fayal daara ji un an location. dina jural daara ji bu un an yooyu jeexee mu mën a jënd terrain. mu mën a jënd terrain koo tabax. moo tax nañuy jàppale daara ji xam nga <laughs> kii la woo du li du li jëm ci moom parce que moom moom ko wax na la ko moom waqf la daara ji waqf la mhm. markaz imam saati bi bi nga xam ne oustaz Omar moo nekk ci bopp ba mhm. euh, jiite ko markaz boobu waqf la kon daara ji dafa mujj jur ay ay ay ay daara yu bare bare bare allah moom mi ca na nekkoon foofu jàpp ci liggéey ba am ca taxawaay mhm. dem ba mujj taxawal bii ci mujj judd daanaka la bokk te gis nga fa tabaarakallaa boobu ba tey mi ngat ngati ñu koy ñaanal nag xam ne du jullit ñëpp macha allah xam ne toolu bi yàllaa ngi noonu bu yaatu waaye mën macha allah kon euh, mbokk yi mi ngi noonu euh, li lii la ñu amoon tey ci euh, waxtaan ndax ñu ngi wax ni waxtu wi jeex na tàkk xam naa nuyoo tàggo yooyu da ma koy jégal rek <laughs> waaye incha allahu rabbi ñu fàttali bés bi incha allah samedi le 27 lay doon fële ca Parcelles Assainies unité 6 ca terrain ba mm-hmm. ñu dara jaale woon ko nag tabarakallahu ak di ci woo jullit ñëpp waaye Eh, idi alxaaji Idrissa Ndaw alxaaji eh, oustaz Abdul Qadir Dramé waaye eh, Seyda Adja Dié Joxaane Adama Dia Seyda Adama Dia waaye daara yaa Aïcha umul muminin jiital Fama Gueye ñoom ñëpp ñu leen ci ressortissant yi ressortissant wu daara umul muminin Aïcha bu Adja Binta Thiaw di ci woo àdduna yëpp di ci woo Sénégal yëpp waaye tamit nag di leen wax rek ngeen xaar ko ci euh, Tawhid TV incha allahu rabbi mm-hmm. dinañu fa dem dinañ leen jëlal conférence bi ci suba sax ba ca ngoon nga lépp lu fay am dina ñu fexe ba Tawhid TV jàllale ko ñëpp mën cee bàyyi xel incha allahu rabbi kon mbokk yi xam naa lii moo nekkoon euh, tey suñu plateau ci euh, waxtaane daara waxtaanee nag programme bi war a am le 27 di leen ko fàttaliwaat muy samedi fële ca unité 6 parcelle Euh, à partir de 9h incha allahu rabbi di ko bàyyiloo xel ñëpp di jaar foofu di nuyu waa régie Cheikh Abdoul Karim ci son bi Cheikh Mansour euh, Cheikh Abdoul Karim ci euh, technique bi Serigne Mansour ci son bi nuyu journaliste yi nuyu caméraman yi fàttewuñu kenn monteur yi. képp kuy liggéey ci kër gi ñu ngi lay jox sunu loxo di la nuyu di la ñaanal yàlla yal na yàlla barkeel lépp loo fay def incha allahu rabbi di leen dig daje incha allahu rabbi ci yeneen i émission yeneen i plateau fii ci Tawhid TV ngeen ànd ci seen mbokk Abdoul Aziz Thiam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu وتريهم